c'est-à-dire le rapport de 2019 existe celui de 2020 existe celui de 2021 existe 2022 moo war a ñëw ak 2023 mm-hmm. ce rapport la s'il n'est pas publié l'Assemblée nationale ne peut pas voter le nouveau budget parce que moom rapport boobu euh, la loi sur organique sur la Cour des comptes daf ko organiser sur quatre points ñett ñeent lay def premier bi il doit contrôler l'exécution régulière de la loi de, des de finances. Mm-hmm. Deuxième bi il doit contrôler euh, elle doit contrôler euh, les comptables publics. Troisième bi dafa contrôler le secteur parapublic. Mm-hmm. maanaam foo xam ne état bi dafay def xaalis. quatrième bi moom mooy jël sanction yi sur les fautes de gestion. Mm-hmm. donc le rapport euh, d'exécution des lois de finances. chaque année day ñëw assemblée nationale mooy tax ñu mun a def ce qu'on ce la loi de règlement donc cour des comptes mooy saytu loi de finances budget bi ñu voté daaw mu xool est-ce que gars yi exécuté nañ ko ni ñu ko war a exécuté ñu jébbal ko assemblée nationale assemblée nationale doog mu ne a voté loi de règlement fi mbir mi sooxee mooy que ne document yi kenn du leen liir mooy li doyen wax léegi c'est-à-dire assemblée nationale euh, daanaka Euh, ci période période boobu diggante bi rapport bi di génn ak bi ñuy def euh, débat d'orientation budgétaire waroon nañ di mun a convoquer ministres yi tous les mois wala toutes les semaines parce que règlement intérieur moo ko wax moo ko may assemblée nationale ñu mun a sur les grands programmes ni mu ko waxee ñu mun ci débattre publiquement askan wi xam lan moo ci nekk naka lañ koy exécuter ñu mun ko suivre ñu saytu ko bu baax mais assemblée nationale Sénégal rek ngay gis ñuy liggéey 60 jours courte 60 jours la ñuy liggéey. entre ouverture pour def euh, li ñu wax loi de finance bi bu jeexee de temps en temps ñu oo leen ñu ñëw voté benn loi demaat seen yoon alors que toutes les semaines ils devraient être là-bas. Mhm. convoquer ministres yi. waxtaan ak ñoom ci li gouvernement bi bëgg a def askan wi jot ci. donc boo gisee euh, rapport yi Cour des comptes bu Cour des comptes defee benn rapport sur sur sur le truc nu ñu koy waxatee sur les lois de finance jagleel ko assemblée nationale. nu mu tuddati commission euh, euh, non budget commission finance et contrôle budgétaire xooluñu ko kenn xoolu ko noonu lañ koy jëlee teg ko ci seen bureau mais personne ne lit les rapports alors que y a des parce que ñetti document lay produire buy buy contrôler loi de finance bi njëkk a produire rapport bi def avis de conformité après def avis sur les rapport annuels de performance parce que comme ci budget programme lañ nekk chaque ministère dafa war a pour chaque programme produire ce qu'on appelle un rapport annuel de performance rapport annuel de performance boobu dañ koy jagleel Cour des comptes mu saytu ko xool est-ce que normal na mais ñaata ministère ñoo fi am ay programme à milliards te produiruñ dara boo demee ci rapport 2020 2021 bi ministère des affaires étrangères produiruñu ministère de la pêche et de l'économie maritime produiruñu y a tellement de ministères yu am ay programmes yu dix a dix a dix et ils le rapport Euh, annuel de performance cour des comptes nag daf koy wax mhm. mais comme ni ko doyen waxee après quand la cour des comptes demande des sanctions c'est pas la cour des comptes qui va mettre quelqu'un en prison ou qui va aller prendre quelqu'un mhm. donc rapport yi ñu ngi fi de mhm. lan la ñuy def ci rapport yi c'est c'est de ça qu'il faut qu'on parle